perquisition dal ci kaw Ousmane Ka ba xolam sedd yàq ko musiba ak mbelengaan dem sax ba di ko tuumal ci lu jëm ci mbirum guerre daa di koy wax ne am na ab détenu boo xam ne li des ci ak dundam yépp la ñu ko waroon a tëj 2013 te ki nga xam ne mooy Ousmane Kane mi nekk premier président cour d'appel bu Kaolack moo ko génnee kàddu yooyu nag bi mu génnee ci mbedd mi loolee taxoon na ministre bi ñu dénk wàllum justice ci réew mi daal di sàkk ñu daal di ci ubbi ab enquête enquête boobee ubbi nañ ko si ñoom ñaar ñëpp déglu nañ leen yéen i kaay gi di Sud Quotidien mu ñu xamal laan ñu dossier boobu nga xam ne moo dox ci diggante ñaari magistrat candidat yi di Ousmane Kane ak Yaya Amadou ja ma ngi ci loxol Cheikh Tidiane Coulibaly yéen a kaay gi du l'Observateur mu xëy di ñu xamal naan ñu dossier boobee teere ji na ci conseil de discipline bi nga xam ne moo ëmb magistrat yu Sénégal journal bi dikk na ci Amadou Yaya Dia lan moo ko ci mën a fekk yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa Abdoul Mbaye ci lu jëm ci wàllum inondation yi nga xam ne moo indi ay jafe-jafe yu rëy ci réewum Sénégal daan na yàq ba musiba ak mbelengaan ki nga xam ne mooy Macky Sall daan nay wax ne dafa lajj ci mbir mi wax na ne Macky Sall jafe-jafe yi nga xam ne askanu Sénégal ñoo ngi koy dund di ko jànkontee la yoonam nekku ci rawatina lu jëm ci wàllu mbënn mi maanaam ay wayaa wayaa la Macky Sall jàppee nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci banlieue bu Ndakaaru bala mu leen a soxla rek élection yu jot yéen kaay gi moom Abdoul Mbaye daal di wax ne plan bi nga xam ne tegoon nañ ko ngir xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllum inondation ci Sénégal gouvernement bu Sénégal 2014 la ñu gëj a wax waxi boobale plan yéen kaay gi di réew mi quotidien Abdoul Mbaye ne lu jëm ci wàllum aar askanu Sénégal protéger leen yoonu Macky Sall nekku ci exclusif ñu xëy fekk fa ay Aïssatou Diop Fall journaliste bi yàq na musiba ak mbelengaan Marème fay Sall nee na Marème Faye Sall wuti wutoon dara ci banlieue bu Ndakaaru Macky Sall lañ fa doon séentu te Macky Sall lañ fa doon xaar ndax makki Sall la ñu fal Marème Faye Sall kenn falu ko te li nga xam ne moom lay de def jamono ji maanaam dara yàlla nekku ci ngis sal ci la Marème fay Sall nekk deful te yàlla tax te dafay wanewu loolee kàddu Aïssatou Diop Fall yéen a kaay gii de la témoin ñu xëy fekk fa Seydou Guèye mi nga xam ne moo yor communication palais bi la mu xamle nee na waruñoo nekk ci réew mi di wax Macky Sall dafa incapable maanaam dafa tële kenn wuru ko wax ci réew mi ndax Macky Sall wanewul loolu li mu wane mooy nit koo xamante ni ku mat la ci li de def lu jëm ci wàllum inondation yi Seydou Gueye nee na réew yu mag yi sax mbirum inondation dalee na sonal te jamono ji ñëpp xam nañ ne inondation yeeg taw yi bëri yi réchauffement climatique bi moo ko waral yéen a kaay gi di Sud Quotidien mu ñu xamal naal ñu en tout cas li am ba des daal léegi tey mu mat une semaine léegi tey mu mat ay bés ñi nga xamante ni ñoo am ay jafe nekk ci biir ndox mi di daj musiba ma bu kumba gu rëy ñoom ñoom ba léegi nii ñoo ngi xaar ndimbal li nga xam ne mooy jóge ci état bu Sénégal waaye nag ba léegi nii gisaguñ dara Grand Yoff am na ci benn xale boo xamante ni faatu woon na ci ndox mi waajuram wu góor nee na ba léegi nii kenn dimbaliwu ko benn masque la ñu ko jox yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy ci dialogue politique bi mu ñu xamal naan ñu waxtaan ya jeex na li si des mooy ab rapport scientifique ñu jël ko jébbal ko Macky Sall yéen a kaay gi di Source A nee na suñu waxante dëgg lu jëm ci wàllum càmbar fichier électoral bi ak processus électoral bi ñu daal di koy évaluer natt ko lépp ci loxol Macky Sall la nekk yéenekaay gi da la témoin mu xëy di ñu xamal naan ñu waaye di gi nga xamante ni opposition bi ak bi def nañu ko ci kanamu Macky Sall ci lu jëm ci dialogue politique bi tax na Macky Sall nu ko neex lay doxalee ci élection yi nga xam ne maanaam moom la ñu dëgmal te Macky Sall mën na ko dàq te kenn du ci man dara li mu bëgg mooy jël élection locale yi ak élection législative yi maanaam daal di leen di boole te lii lépp nag waaye di gi nga xam ne opposition bi moom la ñu waaye di wala sax mën nañoo wax ne am na ñenn ci opposition bi complice lañ ci mbir mi yéenekaay gi de Dakar Times ay mbir moomu wax ci lu garaaw garaaw nee na réewum Sénégal askan yi bu ñu demee ba ñenn ñuy xiif di leen rey bu mu bett kenn ndax waa FMI ñoom bind nañu ab rapport jébbal nañ ko réewum Sénégal ci situation économique bi nga xam ne Sénégal moom lay dund yéen kaay gi délibération xëy di ñu xamal laan ñu magistrat yi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi kër yi nag nekk ab cour boo xam ne dafay xeex lépp loo xam ne jëm na ju teraanga ju léwul ji magistrat ya fa nekk jamono ji ñoo ngi leen di fay te amul benn liggéey boo xam ne ñoo ngi koy def ndax amuñu benn dossier amuñu kenn ku ñu yóbbu kër yi loole moo tax magistrat yi nekk kër yi liggéeyuñu waaye nag ñoo ngi leen di fay réunion bi nga xam ne ñoom mujj nañu ko def 2015 la gëjoon parquet bi dossier Abdoulaye Balde ñaari at ma ngi nii waxu ci dara lu jëm ci wàllum indi ay yeesal ci kër yi waxoon nañ ko ci réewum Sénégal waaye dafa mel ni dañu ko fàtte yéen kay gii di réew mi ko di jeex xëy ci lu doy waara doy waara nee na dafa am ñaari liir yoo xam ne dañu leen a for ci rond-point Case ba ñu sànni leen fa ñaar ñëpp ñàkk nañ seen bakkan journal bi nee na am na ci keneen koo xamante ni aw waxambaane la fekk nañ ko ci route de Boune ñàkk bakkanam journal bi di lii quotidien xëy di ñu xamal naa ñu lu soxal wàllum dil ñoo ngi koy tudd diggante Alassane Dramane Ouattara ak Laurent Gbagbo Jeune Afrique nee na Alassane Dramane Ouattara moo wax mu Mouhamadou Issoufou bu Niger na ko waxal ak Gbagbo bu dee neutre na ci élection yi nga xam ne moom lañ dëgmal ci Côte d'Ivoire maanaam noppi na pata pataral su ma gañee réew mi dinaa ko gracier surnal bi jàpp ne ñooñu dañuy dil yéen kaay gi di sunu làmb xëy di ñu xamal naa ñu lu toll si juróom fukk ci ay fan moo tee mandat Aliou Sarr daal di jeex ci bopp CNG bëri na ñoo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 Yes